di wax ci turu équipe médicale bi nga xam ne moo ñu bu fi andi mu nekk euh, équipe bu suude boo xam ne ñu ngi jógee dakaar ci ci ci université yi ci hôpitaux yi gën a mag ci dakaar ñu àndoon fi ñëw ci quatrième édition bi nga xam ne moom la ñuy def tey biñ ko defee ba pare liñ ci jot a réaliser liñ ci jot càmbar ci ay malaat ak ñu ñëwoon am fi yitte loolu lañ leen bëggoon a teew la biñ defee amoon na amoon nañ ci biir kii spécialité bu ñuy wax neurochirurgie neurochirurgien bi moom jot na gis cinquante trois personnes mooy wàllu ci wàllu yax ak ci wàllu sidit pneu amoon nañ tam beneen pneumologue moom jot na gis vingt trois vingt huit personnes parce que spécialité yoo xam ne la médecin généraliste ñoo leen di xool ba xam ne yitte woon nañ dem foofu ñuy référé leen foofu pour ñu xool leen ci xoolin bi gën a sori amoon nañ tam ànd nañ fi ak dermatologue dermatologue bi tam cas particulier yi gënoon na kii ci wàllu der moom lañ ko joxoon moom tam am na ñu fi gis gis na si 37 personnes ñu boolee médecine générale amoon nañ fi 10 médecins généralistes yoo xam ne ñu ngi ci Euh, hôpital yi gën a mag fii ci Dakar ñëwoon nañ tamit ñoom gis nañ parce que ñoom ñoo doon segg suñ leen yónnee malade ñoom ñooy xool fan la yittewoo ñu ñu ñuy toxal ko foofu ginnaaw bi ñu ko seetalee yaramam yépp foo am nañ fa 374 am nañ te àndoon nañ ak benn néphrologue ñu xool wàllu brin ñu yittewoo côté boobu tamit comme spécialité boo xam ne dafa xaw a raar ci gox bi gis nañ fii 8. àndoon nañ ak ay pédiatre pédiatre yi tam suñ xoolee jot nañ fi gis ay xale yu takkoo takku jot nañ fi gis xale yu takkoo takku ci àpp quatre vingt personnes àndoon nañ ak euh, ay ophtalmologue bi ñëwee ñoom tam jot nañ gis soixante-quatre personnes àndoon nañ ak gynécologue ñu koy euh, moom tam ñaar ñaari gynécologue ak sage-femme bi di ko dimbali ci wàllu liggéeyam jot nañ fa def douze échographies defaale fa dépistage cancer du col de l'utérus ci wàllu jigéen ñi mais jot nañ ci am sax juróom ñoo xam ne dépisté nañ leen te fas yéene leen référé ñu dem ci hôpital yu mag yi pour eggali seen faj ñooñu jot nañ fa gis ñoom tamit soixante-huit personnes àndoon nañ ak ay spécialiste ORL mooy ñuy xool wàllu baat nopp ak prox ñooñu tam jot nañ gis quarante quatre personnes def nañ fa ay extraction yoo xam ne ay bouchons yiy fatt nopp pour dégg-dégg bi du leer defal nañ leen foofu ay extraction corps étranger ci biir nopp yi génn nañ ay bouchons yoo xam ne ñooy fatt nopp yi nga xam ne dañu ànd ak seen dégg-dégg du leer te ñoom tam équipe boobu ànd nañ manko def benn intervention chirurgicale intervention chirurgicale boo xam ne malade bi si boppam waroon na dem ba Dakar wala hôpital yu mag yi pour ñu mun ko koo defal te fii lañ ko defee ci gox bi àndoon ak ay rhumatologue rhumatologue bi tam jot na gis euh, quarante neuf personnes waa service dentaire ñuy coytu wàllu bëñ ak euh, carie dentaire yeeg yi demee noonu ñoom jot nañ gis quatre vingt douze personnes def nañ fi ay extraction dentaire def fi ay soins dentaires defal loolu yëpp àndoon nañ ak ay urologue urologue bi tam jot na gis seize personne vingt six personne la gis mu jongal fi fukki xale yoo xam ne seen âge mu ngi commencé ci juróom ci ñetti at ba juróom-ñaari at moom jongal na fi fukki xale moo tax xoolaale na fi ay mag ñi nga xam ne yittoo woon nañ ci wàllu urologie mu gis fa fukk ak seize personnes fukk ak ñe fukk ak juróom benn ñu ànd ak cardiologue cardiologue yi tamit amoon nañ fi ñaari cardiologue jot nañ ñoom gis quatre-vingt-douze personnes aussi defaale fii ñi nga xam ne ñoo am côté cardiologie carrément am ànd ak feebaru tension bu fës ba nga xam ne médecin yi di leen pour ñu seetal leen examen yi gëna a poussé ñu defal leen fay ECG ñoom tamit def nañ fa 53 ECG yoo xam ne def nañ ko foofu ci loolu ñu ngi gis cent 1140 consultation lañu def équipe médicale bi ko composé woon nekkoon trente neuf personnes jóge nañ dakaar ñëw fii ci loolu amoon nañ dix médecins généralistes am ñaari pharmaciens am six dentistes am deux rhumatologues am deux trois ORL am deux cardiologues am benn neurochirurgien benn dermatologue benn urologue ñetti pédiatre ñaari gynécologue benn pneumologue ànd ak ay équipe paramédicale itam am na ñu leen doon dimbale amoon àndoon nañ fi ak sage-femme ak infirmier ak laborantin ci biir loolu sëñ bi ñun kat waa Sénégal rek ñoo doon ñëw di ko def mais xool nañ ne léegi mu ngi gën a yokku parce que ci biir 39 yooyu am nañ ci ay camerounais yu ci ànd ay mauritaniens ñu ngi ci ay gambiens ñu ngi ci ay euh, waa Congo RDS ñu ngi fi am na ñu jógee waa Madagascar tam ñu ngi ci. waa Niger ñu ngi ci ak ay marocains kon loolu lañ amoon lu ñu leen doon jotale seen bi di sant di gërëm di ñaan ñu teewee ko ay déwén yu déwén. ndax bi ñu tàmbalee journée médicale yi ba léegi ren mooy la quatrième édition bu ñu xoolee ci wàllu dox budget daaw bi dañ ko doubler ba mu am lu ci teg. te loolu dara warulu ko lu dul ndimbal gi nga xam ni sëriñ bi dimbali nañu ko ndax li nga xam ni moo ko taxawal mooy la cadre de concertation et de réflexion mooy CCR bi ñu ne dafa nekk mbooloo moo xam ni sëriñ bi moo ñu jox ndigal joxoñ ñu won ñu aw yoon nangam ak nangam bëgg naa ngeen liggéey ko mbooloo mi daal di sosu ñu taxawal ko sëñ bi daal ñuy leeralal yoon yu ñuy jaar donc ci tënk CCR bi am na commission yu bari am na commission infrastructure commission médicale bi organiser les journées médicales commission environnement et agronomie am nañ commission euh, finance commission communication et cetera commission bu ci nekk fànn gi muy dox mi ngi koy doxee ni mu ko war a doxe ndax jumaa ji ngeen gis lépp lu jëm ci wàllu supervision technique les ingénieurs supérieurs yi nekk CSR bi fi ñu dool ñoom ñoo ko jël en main ñoom ñooy ñoom ñooy superviser les travaux de la mosquée li nga xam ne moo jëm ci li ñu fi dajale tey muy journée médicale yi commission médicale moo koy saytu ci njiital sëñ Bakka Mbaye miy toog ak docteur Moustapha Cissé ak ñëpp ñi nga xam ni ànd nañ kook ñoom nekk ci wàllu hôpital yeeg partenaire yi ak mbokku taalibe yi li nga xam ne daal moom lañ ci seetlu ci ndimbal li mooy bi ñu tàmbalee journée médicale yi dafa mel ni bu ñëw rek mooy gën a yomb sànq wax naa sëñ Mbacke mbay ma ni ko des na tuuti jaratul sax ñuy réunion lenn rek la ñuy def def des réunions de coordination xool nan la ñuy organiser ñëwin bi ak nan la ñuy organiser lépp lu jëm ci wàllu logistique waaye mel na ni mbokk taalibe yi kenn ku ci nekk boole nga ko ci sa euh, agenda léegi kenn ku ci ne la la ca war danga cey dox ba dox ca lu weesu la nga waroon dox ànd ci ak beaucoup d'engagement ak beaucoup de détermination kon ñu ngi ci sant waa CCR bu baax a baax ci mbokk taalibe yi taxaw bi ñu am ci liggéey bi beneen fànn bi ci des mooy ñi ñu ko àndal mu waaye hôpital docteurs yeeg médecins yi infirmiers yi ak sage femme yi li ci dollikuwaat mooy kenn ku ne ci ñoom noo seulement da ngay ñëw waa dañ cee boole di def seen alal ci liggéey bi di indi ay médicaments di ci jàpp di ci dox am na itam mbokk taalibe yu bari yoo xam ne léegi bi ñu yëgee liggéey bi ni muy doxee ñu ngi ci dugal seen ñaq bu baax a baax ren jii am na ci mbokki taalibe bari tàbbal nañ ci seen ñax mbokki taalibe nga xam ne ñoo nekk fii ci dëkk bi ci jiital sëñ Ousmane Ndiaye mii toog depuis loor dara lu luñ fi war a def lu yeex euh, amu fi li jëm ci wàllu bâche yi chaise yi organisation lépp lu ci war a def matale nañ ko bu baax a baax macha allah bu nga xam ci wàllu restauration bi la soxna yi dëkk ci kër gi ñu ngi leen euh, ameel cant bu baax a baax ndax ku mel ni sëñ Mbacke Mbay dafi dool daa xewloo xewlu ba soxna yi boobu ba léegi nelawuñu ndekki añ reer ba léegi ñu ngi dukki dikk ñu ngi leen di amal cant bu baax a baax ci turu euh, CCR bi léegi nag li nga xam ni moo ci tënku mooy xam nañu journée médical yi CCR bi léegi lenn dong lañ ci doon mooy ñu koy jiite di ko coordonné waaye léegi ñun ñëpp ñoo ko bokk initiative ci ñun la tàmbalee woon léegi yaatu na kenn ku ne ñi ngi ci dugal seen ñax ñii ci dugal seen doole ñi ci dugal seen xam-xam di ko ci boole kon moo tax ma ni bii mooy une la quatrième édition boo xam ni mën nañoo sax bañ a waxati CSR moo moom journée médicale léegi journée médicale ñun ñëpp ñoo ko bokk kon képp ku teew ci jotaay bi ak ku fi teewul ak kuñ ko mën a jotali nañ ko xamal ni waa kër sëñ Moustapha Arafa dañuy def journée médicale kenn ku ci ne fànn boo mën a féete nga féete ci ba ñu yegg à un stade boo xam ne képp koo xam ne amatee nga tawat yàlla na fi yeex sa xel dina dem ci période bi ñu koy defee ci màggalu kazu euh, rajab bi li nga xam ni moom la major Touré wax léegi li ci dolliku mooy ren lañ ci boole circoncision ndaxte xarafal bokku ci woon après bi ñu ko xalaatee ñu ni nañ ko ci boolewaat li jëm ci wàllu euh, urologie pédiatrie médecin yi dañoo dolli ko waat sànq rek suñ Mbàkke Mbay mi may xamal ni ma constaté nañ ni ci wàllu xale yi la euh, euh, yitte ji ak la demande moo ngi fi donc pédiatrie incha allah. dinañ ci waxtaan ak euh, commandant Mbène pour nuñ ko mën a renforcer bu baax a baax ñëpp ñoo xam ne teew nañ fi surtout ci wàllu docteur yi soxna yi ak góor ñi ñu ngi leen di amal cant bu baax a baax. te loolu am na ci foo ne duma fa àgg waaye dama ko dund ak sa wayjur sëriñ Souhaïbou du ma ca du ma ko du ma ko wax lépp waaye xam naa ne. liggéey boobu sunu borom dala ko séddee kon yàlla na la ko téyel te nag doomu aadama ji moom bu defut la mu war a def it dana defi leneen ndax toog loxoy neen yombut ñàkk sonn it yombut waaye def ko fa nga ko war a defe ak la nga war a def loolu mooy li mooy li am solo kon day moom mi la ko baaxee nga xam ne yaa ngi ciy taxaw te di ko rafetal bokk kook ñi ngi ko war a àndal li mu wax ci sañ Mbàkke léegi ànd koog ñi ngi ko war a àndal te bu ñu xoolee jataay bi rek dana ci feeñ ragal naa ne képp koo xam ne kii mbirum sëñ bi ñor na la xam nga nag doomu aadama moom ñëpp dañoo mënta baase ci yem ni nit ñi wuutee ci ñi gudd ñi gàtt ñi xees ñi ñuul pas-pas yi noonu la wuutee moo tax mënuñoo yem waaye ko képp koo xam ne kii mbirum sëñ bi ñor na la dina naw bu baax liggéey bi nga xam ne mu ngay liggéey ci xasida Sëriñ Tuubaa yi ak ci leneen li ci aju la xam ne génn na sax biir xasida yi ndax lii rek ci la bokk li tax mu mat a leeral te mat ko naw mooy dafa bari loo xam ne fañ ko doon séentu dañ ko fa ñàkk mu nekk góom yoo xam ne yu yu metti la kon boo gisee koo xam ne jàpp nga ne moom lii mu nekk mooy la war a nekk keneen ku ko defati te loolu nga war a nekk war nga ko woon bu baax a baax te sëriñ bi mboolem ñi nga xam ne ñoom la defar ak ñi mu àndal ñépp ba ñu àgg fi ñu àgg ngërëm rek lañ ci doon wut ci moom bañ amee ngërëm mu defar loolu lépp ngërëm loolee nag ba tey mën naa am ndax li nga xam ne moom la liggéey képp ku koy taxawul na la leer ne mën nga ci am ngërëmam ngërëm loolu yàlla la ko taxal ak képp koo xam ne kii yéene na la ko ak koo ko àndaaleel di li ñu fi dajale muy ci wàllu wér-gu-yaram nga xam ne moo tax mbooloo mi àndandoo yow day jàpp naa ne ba tey ci wàll woowu sa wayjur jur wàllu wàllu wér-gu-yaram bokk na ci lu mu gënoon a ittewoo loo xam ne kenn melu ci ne moom man maa ngi fàttaliku bu bu amul noor ak nawet weer wu nekk daf may wàññal fanweeri doom yi niwaa kii ne ma bis bu set benn doom lay doon ñoo xam ne sax du ma ko mën a jëfandikoo lépp ci donte donte ndigal la bi mu fay jógee di ñëw daaru moo ti ñibbisi sama walis li ci nekk ci niwaa kenn xamul nu mu toll maanaam dafa yéene nit ki ak laabiir gi nga xam ne moom la am ci bëgg doomu aadama lépp mu yaakaar ne su ko su ko defee nit ki yëg ne mm, yëg na ko da koy da koy jaral lu ne da koy day yëg ne day bëgg nga yëg ne yëg na ko maanaam man neexuta misaal loolee nag dugg na dugg dugg na ci sa liggéey bi ndax laabiir gi ak taxawa gi loolu fu ñu ko déggee ci kër sëñ Soy bu rek jàpp naa ne ku ko xam dëgg dëgg dëgg loola moom danga naa alhamdulilah rek nga ci kon alhamdulillah yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko ñoo ngi koy ñaan mu barkeel la leen ko bu baax a baax ñi nga xam ne itam sëriñ bi ñoom nga ma jox kàddu ne naa leen sant gërëm leen ci liggéey bi muy ñi nga xam ne mooy mooy docteur yi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo bokk ci mbootaay gi nga xam ne moo leen di taxawu nañu xam ne li ñu def liggéey la boo xam ne ngërëmul suñu boroom mën na cee am ngërëmul sunu borom nag bu amee du jeex mukk dafay nekk di law ba faw ndax kenn ku ne xam ne ne réew mi wala ñu bari boo xam nañ ne réew mi faju fi yombul ba tax na buñ naan buñ leen dem ci sungu fi ak reen yi ah dañ koy wax rek waaye faw nit ñi dem ci sungu fi ak reen yi ndax sañ dañuy dañuy wéré di te duñ mën a faju ci fajukaay mm, hôpital yi loo tax faaw ñu def loolu lu mel nii nag nga xam ne lii ma dégg léegi ñu lim ko fi lépp ci ñoo xam ne ay spécialiste lañu ak li ñu jot a seet lépp boobu liggéey benn liggéey mënu ko gën a gën a kawe te man gis naa ci loo xam ne man ci sama bopp la dal kooku nga xam ne moom la ñu xam ne moom moom la moom la ñu opéré sa sama waa kër la mel na moom boobu moom mel képp da <laughs> doyoon na liggéey bi waaw mel na moom képp liñ ko defal da doyoon na liggéey bi kon sëriñ bi doonte nga xam ne ñoo ngi sant mbooloo mi ko doon liggéey yëpp ci turu sëriñ Hamsatu ak sa tur waaye man maa ngi sant bu baax a baax ndax ki mu dal ci moom moo ko xam li li ñu ma defal sabab teewaay euh, euh, mot matalu mataliwu ko yàlla mi nga xam ne nag dafa ma cee yemale te Ahmadou moo ko jàpp indaale ko yëgu moon sax indi nañ ko ba ñu wax ma liñ ko defal ma xam ne yàllaa ko nar a dimbale rek te bu bu bu bu fekkoon dañ ko war a yóbbu ndakaaru wala feneen dana jafe lool dana metti lool jaar naa fa léegi ba gis ko ci fañ fa mu nekk te xam nga mbir mu nekk su fekkee ne da ngaa gëm yàlla te te muy dëgg ci yow te nga mën a taxawee taxawaayu jullit bu gëm am tawhid lu ñëw lu nekk da ko delloo ci yàlla waaye sabab sayit da nga ko koy da ko koy delloo sabab si nag mi ngi bàyyi ko ci yow mi ak sa njaboot gi sabab si mi ngi delloo ci docteur yi nga xam ne kenn ku ci ne fa mu nekk di liggéey ku ci mel ni Mbàkke Mbay nga xam ne la muy liggéey foofu ak na muy taxaw njaboot gi foofu ak ñeneen ñi nga xam ne gis leen rek bu daan moom rendez-vous mën naa sori lool yaakaar naa ne kon lii sëñ bi liggéey la boo xam ne képp ku ko xam ko ne waxuma la ñu bokk ci mbootaay googu walla ñu aju ci kër sëñ Moustapha May waaye ku bëgg lu baax ku nekk war na ca mën a dugal loxoom ndax lii ma ci dal tey jii rek wane na ko sama sama njabootuk bopp goo xam ne kii liñ ko defal bu ko defoon bu doon dem ndakaaru lañ cey fay kenn xamut nu muy toll ndax it ndax boobaa sax moom buñ ko doon yóbbu ndakaaru dana fa àgg loolu dafa ab tegtal la te gis nga sunu boroom bu nammee mbir day am fu mu koy jaarale ñuy jàngalee taw tawhid dañ koy wax dañuy dañuy wax ne sunu boroom la mu la mu def moo gën la mu defut lu mu def lu mu metti metti rek moo gën la mu defut ñu misaale ko ni su fekkee ne dafa jël way jur bu ko neexoon mu boole ca doom ja bu jëlee doom bu ko neexoon mu boole ci way jur te defu ko moo tax ñu ne lu mu def moo gën la mu defut ba tax na yëg naa ne liggéey bi moom euh, du duwul ne li mu dal ci sama jëmmi biir kër ba ma gis ci résultat boobu waaye daaw bi mu fi jógee ak sëriñ am sëtu mi laa gis ne liggéey a ngi nii boo xam ne bu mat a bàyyi xel la ndax it nag nit ñi euh, xayru naas man yan man yan faw naas mooy euh, ku gënal yàlla ci nit ñi mooy kii jariñ nit ñi loolu nag dafa nekk loo xam ne li dañ ko dañ ko war a dundaale ci sunu biir sosi li ñu tuddee société mais sunu nekkin wi suñu mbooloo yi di ko dundaale ci sunu biir lépp loo xam ne nit ki tane na ko moroom ji mu mu di ko ko dimbalee di ko taxawee loolu lii dafa dugg ci biir ndimbal loolu nga xam ne nag moo war diggante jullit ak moroom war diggante doomu aadama ak moroomam rawatina dëkkandoo yàq pa ba ña bokk ay pas-pas ragal naa ne loolu lii ak tegtalukaay la ci yoo xam ne euh, bu ñu bu ñu ci jógee def defe naa dina gën a yaatu geneen yaatu goo xam ne duñ ko woon fooge noonu ndax résultat yi xam nga résultat moom man damay seetlu wax ne moo dàq xuloo moo daq xeex Ousmane Ndiaye ñoom ak Habib Diène ñoom ña ngi ca nangam ak nangam jurul xuloo bàyyi xool tuuti rek na nga gis la mu jur résultat bu ñëwee rek nga daal di waaye résultat yii moom dafa wane boppam li ñu fi lim yépp ci xeeti jàngoro yi ak ñi nga xam ne ñoo ko doon taxaw loolu euh, dara mënu koo dindi ndax day lu am li am moom dara mënu koo dindi te loolu mooy li am waaqe la dara mënu koo dindi loolu nag kon yéen yi nga xam ne yéen a koy baaxoo taxawee eh, yal na leen ci yàlla barkeel seen liggéey yi eh, seen bureau yi nga xam ne ci ngeen nekk tëj ko ngir ngir yàlla ak sëriñ bi eh, moom mi nga xam ne ku mu nga yëkkati ko yal na leen yëkkati liggéey bi nga xam ne moom ngeen di def mu gën cee dugal mu gën cee dugal ndimbalam ndimbalul sunu borom ci ci liggéey bi ndax man gëm naa ne kii opéré nit moom sax mooy gën a tiit ka muy opéré ndax bu sañoon dara du ko jot leneen noonu leneen noonu leneen noonu kon moom moom nga xam ne moom suñu boroom eh, bu ko neexee eh, yulu ji lay la fi nahaar wa yujul nahaar fi layl mën na mën na ko doxe nu ne mu may leen ci ay ndam yoo xam ne dangeen xam ne képp koo xam ne bokkal ngeen liggéey bi te bokku leen lii du du ngeen du ngeen leen ñee ci genn wet nag sunu boroom am na ko mën na ko yàlla leen ko defal kon daal sëriñ bi ci gàttal mooy sant yi nga xam ne moom la sëriñ Amzat waxoon ñu sant ko mbooloo mi mbooloo mi nag lépp a ngi ci biir ñi nga xam ne dañoo ànd ci liggéey bi ñi nga xam ne dañu bokk ci daayira yi ak ñu nga xam ne dañoo bokk ci docteur yi nga xam ne ñooy faj ci xeetu xeetu fajin yépp nag ñoo ñëpp kenn ku ci nekk la nga ci def suñu borom fay la ko sunu borom euh, defal ak defal ak wér defal ak kattan ak sutura ba nga xam ne waxtu wu ne bu ñu bu sëñ bi nee nii la rek wala soxla naa rek ñëpp jóg taxaw loola mën a sotti loolu suñu borom am na ko mën na ko yàlla yàlla na ko defal ñëpp kon daal sëriñ bi bu fekkee ne eh, desul ne loo xam ne soxla nga ko ñu <laughs> dal ko ci defe naa ne daal loolu laa doon jéem a wutee ngërëm loo xam ne damay jàpp ne tey sëñ sooy bu moo doon jox ndigal noonu laa ko noonu laa ko jàpp ndax la ma seqoon ak moom gis naa ne taxawaay bi tuwarkal la suñu xol na bu baax ak ya daje yeneen yëpp xam ne du lu ñuy wax loolu jàpp nañ ko bu baax a baax di sant sëriñ di ko feddali moom itam ci taxawaay boo xam ne yaa ma ko a xam li nga xam ne moom mooy li ko war mu nekk ci e, te nit ki war naa mën a yonent bi sallallahu alayhi day wax ne gindi jubbanti nit ki ci say say defin moo gën jubbanti nit ki ciy wax ni ngay defee ñu xam ne diw mii de nii muy doxale yoon waa ngi nii loolu moo gën waaye wax joo ne boo fa jógee sax boo ko defee fàtte nga ko kooku dara du du du du lu am solo moo tax xadis bi ne jubbanti nit ki ci say defin moo gën jubbanti nit ki ci ay wax te yàlla nga ko ci suutaraal moom mi ko ko <laughs> def yàlla ko ko téyal te royukaay la ci anam yu bëree bëri yaakaar naa ni <laughs> Euh, euh, xeebeel du ci am ci ñi ko seqal ñi ki ko seqal nag bu la xeewul rek mel na kon mbir mi mi ngi ci yaa ngi ci yaa ci kaw yoon la ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp te ñaan yàlla sunu borom nii nu ko fekkewaatee ren ñu fekkewaat ko déwén yu bëree bari te euh, gàllankoor yi wàññiku lépp lu jafe-jafe sunu borom jële ko bi te yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci réew yi jullit yi def ko ci àdduna bi yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa dara du ci dolli